man la soxna Astou Boury Mbacké waaw moo daal yow nii rek lañ lay bàyyi yow daal dangaa nar a dund ba dee ci ñàkk jom ak ñàkk fayda ak naafiq ak rambaaj ci yow daal ci nii rek nga nar a dox Modou man de Modou wóor na xaadim rasool bokk gi ma bokk yow ak sama xar kanam gi nuroog sa bos bii saa bu ma xëyee rek di ci am gàcce Modou munoo bàyyi fi mu rambaaj Modou yow ku la fekk nga naan dangay défendre Aïda Diallo luñ lay wax. bu la neexee sa war nga ko mën a défendre waaye je te connais très bien défendre loo Aïda Diallo ngir yàlla wala liggéeyal Serigne Touba li ngay défendre Aïda Diallo mooy intérêt personnel ci sa bopp di lekk Aïda Diallo di ko roñ di ko bis bu yàlla sax nga dem jóg ko ay fen ba mu fees sa li wax dara du ci dëgg Modou Modou doo sa xel mi nag nga wàcce sa bopp nag du ba leen ay xalifa général yu fi jaar da teen ko rafetal ah man de wax dëgg yàlla ci sëñ Saliou laa doog a commencé fàttali ko ay xalifa général ak leen doon wër xoola Baye Moussa Niang nam sa sewoon ci sëñ bi ak ñeneen ñu mel ne moom moo ne tey ji de lépp jeex na dangay xool tey ji ku mel ne alaaji baara xoolal ñi sosoon ci moom kalaasu martaar xumma gaa kalaasu alaaji ñing gi lépp jeexul tey bu rafetul woon nu muy demee moodu xoolal tey ji ku mel ne alaaj alaaj njaay eh, seex njaay ma ne woon ci kër sëñ Sidi Maxtaar ak ñeneen ñu mel ne moom bu rafetoon tey ji nu muy demee yow mii nag tey jii nag ñu ne kër sëñ Basiroo aaye yow nga jël ko rek def ko intérêt rek di di ci lekk ak yow daal sëñ bi moom yow daal moom toppewoo ko lenn lu dul daal lekk ak naan ak sa intérêt bopp daal moom nga toppi sëñ bi aku tur moo du delloo sa xel mi moo du adada moo du teengaa teey moo du bàyyi fen ak naafiq moo du yow war ngaa mën a défendre Aïda Diallo jalal la ngay xas sa bopp xas sa bopp mooy lan am na ay mbàkki mbàkki yu jigéen yuy màndi di naan di naan ko tox di ñëw ci sëñ moo yaa mën a fen moo du ban mbàkki mbàkki bu jigéen moom nga gis muy tox ak naan di ñëw ci sëñ bi moo du bañ nga sa bopp da ndax yàlla ak intérêt moo du yow képp koy dunguru wala ngay wax ak moom baa ngay jéem wala nga teg ko fenn nga xamal ne daa yor dara lu mu la jox moo di yow ku yorul dara lu mu la jox doo ci liggéeyal sëñ Tuubaa da ngay fen ku yorul dara lu mu la jox doo doo ci liggéeyal sëñ Tuubaa yow Moodu xamoo luy sa bopp nga xam boo waxee li xam nga ne da ngay kàcc da ngay fen Moodu ban mbàkki mbàkki bu jigéen ngay gis muy maam day ñëw ci daal ba boole ci mbàkki mbàkki yu jigéen ngir yàlla ak intérêt man damaa yërëm Aïda Diallo ak Saliou Thioune xam nga lan laa leen yërëme Moodu mooy ginnaaw nag dégg nga la waa ji wax bi nga tarxisee bay wax mooy damaa bëgg nga dox ci ñëpp ñu nga naan ko bu ko kenn yëg bu gé bu siiwut rek danaa ko man waaw li nga bëgg mooy nekk ci diggante ay Aïda Diallo di wan na Aïda Diallo di di di wan na Saliou Thioune koo wéetal ne ko yaa fi gën kee baaxut ndax yow loolu mooy sa jikko dangaa naafiq dangay wax ci kaw di wax ci suuf Modou Modou Mbacke wax ci kaw wax ci suuf baaxut Modou Rokhaya bàyyil ni nga mel Modou dangay rusloo say bokk te yëgoo ko moo Modou delloo si sa xel moo Modou bàyyil naafiq ak rambaaj ak fumiste Modou bàyyil di dugg ci diggante ay nit Modou ba nga juddoogul sax lañ doon nettali boo boo ba nga juddu ba toll ni nga toll bu ñu ko doon wax tey ji nga ne maa ko fekkee nii la demee ak nii ak nii moo lu la tax naa moo du sañ-sañ bi ngay woote te amoo ko pour lan la moo du nit ku foo nga na barki Sëriñ Bamba Modou waxee li ngay wane ci kaw bokkut ak leneen ci suuf man Modou du ma mës a jubóog yow safoo ma neexoo ma intéressé woo ma barki Sëriñ Bamba sa jëmmu ji wartoon na jël mukk sama jëmmi baay bu baax ba barki Sëriñ Tuubaa Mbàkke ndax naa fekk nga lool te fi nga liñ naan nag doon sa nuru sa baay doon sa baay ku gën mooy wax dëgg yoon dangaa nuru sa baay waaye doonoo sa baay nga ñuy wax ngay défendre Aïda Diallo di xas mbàkki mbàkk yu moo yow yaa mën a fen yaa naa fekk Modou yow képp koo may kanam gu leer rek daa dangaa am intérêt ci moom ku yoru dërëb bu la jox yoru matériel bu mu la jox doo ko faale moo yow jabar yi ngay takk sa da nga leen takk uniquement pour jariñoo leen lekk leen ku ca yoru xaalis nga lekk ba lëggatee nga xas ko waxal ko lu ñaaw fase ko man fi ne ja Modou Rokhaya jabar jooyal sa dama ko yërëm ndax sa làmmiñu ñaaw ak sa naa dégg nga ak sa wax ci kaw di wax ci suuf moo Modou ku la fekk ngay xas mbàkki mbàkki jigéen yi ñu lay wax yow parce que Serigne Touba Mbàkke maa la jéppi maa ngi lay déglu ndax ku rëyu làmmiñ nga maa ngi lay déglu maa ngi lay déglu Modou bisimilah du mën ngaa dàgg sante jigéen ay ca bisimilah na la ko Aïda Diallo jàllal man maa ngi fi sama morom fi faalewu ma la na la ko Aïda Diallo jàllal bisimilah